salaamaaleykum yi ñuy leen jaajëf sant leen bu baax a baax soo la ñu jotee ngeen xam ne jamono gi ñoo ngi camp pénal ki nga xam ne moo di ah, Guy Marius Niang xam ne dañ koo tëjoon boobu léegi courant gi ah, nag dañ ko dafa mel ni tey dañ koy looloo tax ko ñëw nañ nga xam ne ne jamono gi ñoo ngi fi nga bentel ba ngi noonu ñi nga xam ne ñoo bokk ci ñoo lànk ñoo bañ fiñu gaa yaa ngi noonu ba de baro gaa yi ñoom ñëpp ñëw nañ fi ñu toll nii force de l'ordre it commencé nañoo ñëw mu mel ni ci ñaan ak Guy Marius Sagna ñu koy libéré bo ay fi tool nii ñoo ngay ñëw kenn xam lu wax agum nak Guy Marius moom nga xam ne ak léegi dañ ci mu doon wax courant gi dafa wala dañ ko wañ dañ ko war l'activiste le plus populaire doon ki nga xam ne xeex na ngir senegal doon na ki nga xam ne lépp loo xam ne senegal dafa am ay jafe-jafe dañ ko ci gis jii Mari Sagna moomu xam ne boobu léegi gars yi ngi marché ki nga xam ne moo di ji dañ koo war a baax ndax liñ ko tëjee du dëkk du yoon tey média bi ñoom ñëpp ñëw neen mën nañ jàpp gëm ne fi ñu toll nii ki nga xam ne moo di jii dañ koy bax ndaxte gars yi ngi waxtaan gars yi ngi waxtaan information bi dañ doon xool respecté lu am déet waaye fi toll nii média bi ñëpp ñëw nañ waa police ak ñoom ñëw mu mel ne fi ñu toll nii li gars doon laam-laame dëgg la gars ngi noonu di defaru mel ni Guy Marius Sagna dañ koy baax l'activiste le plus populaire ka am la nag ce sont les images yi nga xam ne moom lañ noonu ñoom Fadel Ba gaa yi bokk ci ñoom